Kembali to Vigilaran SM. Abonen, te klik di post notifikasinya. Har sunyi video. Terus. juróom ñeenti waxtu ci guddi tostal na ñeent fukki simili ak juróom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi leen di nuyuwaat baax di leen siyaar tey altine fukki fan ak benn ci weeru septembre ngir fan fàcceel leen dina am ci ci guddi gi ko ci bakkan yu rot ak ñu bari ñu am ay gaañu gaañu yu garaaf ne ñu am na ah, est tey jii ci altine ji fukki fan ak benn ci weeru septembre ci après midi bi ay manifestation am na ci commune ba ñuy wax Kosonto ak commune bii di Mama Kono nekk ca Kédougou Est bu sukkandikoo nag daal ci APS bi sukkandikoo ci seen ay sources li ñu xam ne daal mooy population yi dëkk fa fekkoon ñoo doon naqarlu ay yoo xam ne andi ko ci benn arrêté xam ne préfet moo département bu Saraya daal moo andi ay coppite ci euh, benn arrêt ñeel wàllum rek équipement loolu nag moo naqar yi ñu dëkk fa fekkoon ñu doon amal ay manifestation daal dina génn baaree route bi dox ci saba dola ak Bembu wut ay birik ak itam yeneen mbir yo xam dal jël nañ ko ko ko ci ba kenn du dem kenn du mën a ñëw daal di nag ki ah, nga xamne modi di circulation bi jur jamar lo seen diggante ak porte de l'ordre yi ni nga nak lolé kon mo dal di indi ñaari bakkan yu rot ak ñu bari ño xamne am nañ ci gañu gañu yu metti xabar bu sukkandi ko ci APS Agence Teres Sénégalaise